jërëjëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen télévision Futurs euh, média ñi ngi ci yeewu leen bu mujj euh, bu euh, semaine bi gannaaw nag 15 août bi nga xamante ni amoon nañ ko démb di kon fête de l'Assomption di ci nag ndoxkeel bu baax a baax a baax suñu mbokk chrétien yi nga xamante ni démb fête nañ ko 15 août nag nekk fête bi nga xamante ni mu nekk musulman yi mu nekk chrétien yi ñëpp ci rek daal di masalo daal di koy rek fêté 15 août nga nekk ndaw nga nekk mag ku ci nekk am nga yenn yëg-yëg yooyu am kon bu nekkee quinze août euh, ñëw na mbaa fanaan ngeen ci jàmm ak salaam ñun yeewu nañ ci jàmm euh, fas yéene kon daal leen gunge incha allah ba 11h euh, ngir waxtaanee yenn sujet yu am solo fii ci yeewu leen nekk kon yeewu leen bu mujj ci bés bi kontaan loolu mbokk yi jàkkaarloo ak yéen ci suba si ngir ànd ak yenn fii ba 11h comme nu ñu koy defee nag bés bu nekk xam ngeen ne nag yeewu leen téléservice. bis bi euh, la ñu koy dooree bés bu ne wax leen aussi li nga xamante ni moom moo ñëw ci euh, yéenekaay yi xëy tey danañ ci ànd léegi ak yéen ci ñaareelu pàcc mi nag ñaatamba euh, ma ngay pare ci ginnaaw oustaz Serigne Mamour Mbacké mi ngi fi ànd ak ñun incha allah ci émission bi yëpp ngir ñu waxtaanee kon ni nga xamante ni moom mooy actualité dina bi màkk bi nag ñoom ñu ngi ci seen dernière ligne droite daanaka vol yu njëkk yi sax léegi mu tàmbalee ñibbisi lu jëm nag ci wàllum yeeg sunna yëpp nañ ko waxtaanee incha allah ci kanam fii ci euh, yeewu leen ñu ñëw nag ci euh, température yi nga xamante ni am nañ ko euh, fii ci Ndakaaru tey jii ci suba boo ngeen xoolee bu baax kon lii di image bi ñu am ngeen gis ne température yi daanaka am na une légère hausse par rapport ak bés yële ñu ñu jàll Dakar tey yeewu na ci 26 degré 26 degré aussi la ñu nemmeeku ca Saint-Louis xam ngeen ne dema hydrobase foofu la ñuy faral di amal kon li nga xamante ne moom mooy feetum quinze août bi ñoom ñi ngi ci 26 degré tey ji ci suba 25 degré euh, ca Ziguinchor 26 ca Diourbel 27 ca Linguère euh, Podor euh, am na 26 degré Matam 28 Tambacounda 25 degré Kolda 24 ak Kédougou loolu nag température suba si la kon fii ci Ndakaaru ak diwaan yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi bu ñu demee nag ba ci ngoon température yi dina gën a yéeg moo tax gis ngeen 39 degré la ñu rek daal di euh, nemmeeku ci euh, diwaan bu mel ni kon euh, Matam kon ñoom ñi ngi ci 39 degré 34 degré ca Tambacounda ak ca 34 degré ca Tambacounda 33 ca Kédougou xool leen ci digg réew mi foofu nag température yi mi ngi varier diggante 37 degré ak 34 degré ci ay diwaan yu ci mel ni Linguère Diourbel ak Kaolack bu ñu demee ci bët gànnaar bi gis ngeen ne Euh, tàngaay bi foofee la gën a euh, kon euh, daal di degré Podor ñoom ñi ngi ci 39 degré dëkk yi nekk ci wetu littoral bi euh, lu ci mel ni Dakar Saint-Louis ak euh, Ziguinchor ñoom ci ñu ngi ci diggante 31 jàpp 34 degré 31 degré kon ca Ndax ak ca Ndakaaru 34 degré euh, ca Ziguinchor xam naa nag peut-être à partir de lundi ñu indi leen nag lu jëm ci wàllum taw mi parce que xam ngeen ne météo dafay rek daal di wax yan période ak yan période la ñuy mën a nemmeeku taw mi rawatina nag ca Ndakaaru ak ci biir réew mi waaye nañu jàpp ne que nekk nga xamante xamante moom mooy saison wu taw mi euh, te généralement taw bi nag dana gën a bare la ko tàmbali 15 août euh, jàpp kon 15 euh, septembre loolu dinañ ci ñëw kon incha allah xam naa ci yeewu leen yi ñu dëgmal bu ñu noppee nag euh, ci euh, wàllum température yi ñu ñëw nag euh, ci horaire des marées xam ngeen ne wax naa ko chaque chaque jour ñu wax ko géej nag day fees ak fer donc ci jamono ji nag géej gi mu ngi ci géej gu fees ba huit heures jotee kon ba teg fanweeri simili beneen fees bi danañ ko nemmeeku neuf heures bu jotee ci guddi ba teg ñeent fukki simili ak benn Euh, suñu mbokk moom yi nañ ko bàyyi xel bu euh, baax a baax euh, lu jëm nag ci géej gu fer gi daanaka romb nañ ko ba deux heures du matin jotee woon nañ ko rek daal di amal beneen géej gu fer gi danañ ko jàpp kon bu deux heures jotee ba teg ñeent fukki simili ak benn loolu nag di information yi nga xamante ni ñu ngi ko jëlee ci service météo moment yi nga xamante ni moom mooy les meilleurs moments de la jàpp nañ ko diggante zéro heure dix jàpp deux heures du matin boobu daanaka weesu nañ ko beneen bi midi la bu tegi jotee ba teg fanweeri simili ak ñaar euh, jàpp euh, kon euh, ñaari waxtu bu jotee ba tekk fanweeri simili ak ñaar kon am ngeen waxtu kon yi pour mun a dem nappi jën yu baax yi lu jëm nag ci jant wi daanaka fenk na ba noppi ba 6 jotee ba teg cum fukki simili ak juróom dana soow incha allah bu 7 jotee ci ngoon ba teg fanweeri simili ak ñett mu nekkoon nag information yi nga xamante ne indi woon nañ ko ci wàllum kon géej géej jaww ji waaye nag du ñuy kon tay di wax suñu mbokk moom mool euh, bu ñu dem ci géej gi nañu yóbbu kon seen ceinture kaaraange mais surtout ci période vacances ñu nekk xale yi ñu bàyyi xel bu baax a baax euh, ci géej gi euh, géej yu ñu interdire ñu bañ fa dem ndaxte géej amul bànkaas ci wàllum julli bi nag euh, suba si nañ ko julli euh, julli nañ ko ba 5 heures jotee ba teg euh, kon ñeent fukki simili tisbaar benn waxtu lay doon bu tegee fukki simili ak juróom-benn takkusaan 16h26 lay doon timis 19h41 et géewee danañ ko julli kon 20h48 mu nekkoon kon waxtu julli. Euh, waa cathédrale euh, ñoom amal nañu seen messe bu njëkk euh, ba 7 heures jotee ba teg fanweeri simili beneen kon beneen julli bi beneen julli bi dinañ ko amal kon bu 6 heures jotee ci ngoon ba teg fanweeri simili martyr de l'Ouganda 6 heures 30 julli nañ def nañ seen messe ba noppi danañu amalaat beneen messe bu 6 heures jotee ba teg fanweeri simili waa Saint-Joseph ñoom 18 heures 30 benn kon messe ñoom lañuy amal ñoom Saint-Joseph bu Grand Yoff xaalis bi nag ñu yegg si ci xam nga ne moom mooy neer de la guerre waaye aussi ku ko am ci say poos euh, di nga am aussi bànneex euh, donte sax xaalis mënta jënd lépp ñu jàpp rek ne benn dollar mi ngi ci 586 ak lu teg benn euro 655 du varié euh, ak euh, lu teg benn livre mi ngi ci 707 francs mu mel ni livre bi dafa xaw a yokk ah, ci ci lu ñuy gis benn yuan mi ngi ci 82 francs ak lu tek euh, benn dirham mi ngi ci 61 francs ak lu teg benn dalasi mi ngi ci 11 francs ak lu teg mu nekkoon nag téléservice bi nga xamante ni indi woon nañ leen ko fii ci yeewu leen pour ngeen am yenn ci information waaye xam ngeen ne groupe Futur Média dama koy wax njaboot la te bokk na ci njaboot gi IGFM euh, pour ngeen dem cliquer rek xool li nga xamante ni moom moo nekk à la une euh, à la une nag de IGFM ñu daat cee rek euh, fësal natalu commissaire Sangaré nekk ki nga xamante ni moom moo daal di am coow ci ndoddam <laughs> ni ki euh, démba euh, sanction ñu ne le commissaire Sangaré relevé de ses fonctions donc à lire euh, ci biir IGFM gis ngeen ci fil actualité bi bien sûr Rebeuss Guy Marius Sagna pourrait être libéré ce vendredi donc à suivre bien sûr et puis mondial basket liste des douze lions retenus mais surtout afro basket bi ak suñu gaynde yi nga xamante ne dañoo qualifié kon ngir dem kon ci demi-finale loolu yëpp nag mun ngeen ko daal di koy lire euh, ci euh, li nga xamante ni moom mooy euh, IGFM alors on va afficher tonton Mac avec ta complicité l'observateur là c'est pour parler des journaux donc les journaux donc de de ce matin donc pour vous dire que nekk observateur ñoom seen à la une ñu ngi wax ci ville de Dakar surpeuplée bien sûr la capitale sénégalaise envahie par les rongeurs Dakar, euh, ville surpeuplée de rats. donc kaña yi nga xamante ni euh, ñoom ñoo euh, daal di sonal euh, ñi dëkk fii ci Dakar les explications du service d'hygiène kon mi ngi ci yéenekaay bi di l'observateur affaire commissaire Sankhare de docteur Cheikhouna Gueye abus dangereux pour la santé de la police donc à lire ci yéenekaay bi di kon l'observateur et puis vol au domicile du footballeur parti à une soirée de Wally Seck Mbaye Diagne se fait cambrioler donc à lire également et puis tamit crise euh, au niveau euh, du Parti démocratique sénégalais le curieux retournement de veste bleue bouclier de Karim Wade hier ils retournent leurs armes contre le fils de donc c'est à la lune euh, c'est à une donc euh, du journal euh, L'Observateur à la une donc de à la donc nous pourrons lire à la lune une de l'enquête je vais revenir ici. Donc, euh, descente musclée à la pharmacie euh, Serigne euh, maam Falilou Mbacké au cœur d'un abus euh, donc à la une aussi ñu gis ci li nga xamante ni moom mooy image capture d'écran yu ñu rek euh, daal di euh, def ci vidéo bi nga xamante ni moom mooy circuler ci réseaux sociaux yi tax kon ñu daal di sanctionner kenn ci commissaire yi loolu mun ngeen ko lire ci bi di enquête et puis affaire Guy Marius Sagna la quête de la liberté provisoire cinq personnes tuées par des voleurs de bétail à Sédhiou les éleveurs sortent leurs artilleries donc loolu aussi mun ngeen ko euh, lire ci yéenekaay bi di enquête et puis euh, restriction euh, du PDS Doudou Wade en phase avec Maître Abdoulaye Wade à lire également dans le journal Enquête et Libération donc à la une de Libération la SR débusque euh, un énorme scandale au cœur de la direction des affaires civiles et du Sceau la nationalité sénégalaise se vendait à un million de francs donc euh, à lire euh, dans Libération euh, des décrets du président trafiqués, la signature du directeur imitée. Euh, premier à tomber, le Libanais Al-Fawaz qui a balancé l'agent de l'État vérificateur qui est en fuite. Comment un signalement de l'officier d'État civil du centre de Grand Dakar a été déclenché donc à lire dans le journal Enquête de ce matin et puis le parquet qui libère Guy Marissagna donc c'est dans enquête euh, yéenekaay Vox Populi nag euh, ci xëtam ci benn ci xëtam ñu gis ci ki nga xamante ni moom mooy maître Abdoulaye euh, Wade le jusqu'au boutisme de Wade risque d'enterrer le Parti démocratique sénégalais donc à lire dans Vox Populi et puis agression contre un pharmacien le commissaire des parcelles glisse sur une ordonnance et tombe donc loolu moom mooy euh, nekk ci une kon euh, Vox Populi et puis euh, quatre autres kilogrammes de cocaïne saisis au port de Dakar ils en parlent nos confrères de Vox Populi le quotidien quotidien yéen kaay moom ci xëtam ne assemblée euh, modification du règlement intérieur Sonko inspire la réforme session extraordinaire en mi-septembre pour le rapport des 94 milliards institutionnalisation euh, d'un déontologue donc à lire dans euh, donc le quotidien affaire euh, commissaire des pays à pharmacie Falilou Maké Cobra se mord la queue donc euh, c'est à suivre dans euh, dans le quotidien et puis le soleil euh, le soleil nekk nag suñu journal national moom mi ngi wax ci wàllum afro basket Euh, Sénégal Angola 88 54 le Mozambique au menu des Lions en demi-finale donc est-ce que les Lions vont bouffer donc euh, le Mozambique euh, donc loolu mu ngeen ko rek daal di lire ci li nga xamante ni moom mooy xëtu yéenekaay bi di Le Soleil Sud Quotidien wax ci affaire wu pharmacie Fadilou Mbacké 6 à la Padoue le Teta de Tetawax donc du commissaire Sangaré le nom du médicament qui est l'origine du scandale de la pharmacie Fadilou Mbacké et de l'arrestation du docteur Cheikhouna Gaye donc nos confrères dañoo def kon euh, benn enquête ci garab bi nga xamante ni moom moo rek daal di indi démb euh, barki démb coow bi am kon ci diggante euh, commissaire bi ak pharmacien bi nekk kon ca Padois à lire ci biir yéenekaay bi di Sud Quotidien et puis Saint-Louis célébration de la fête de l'Assomption monseigneur Ernest Sambou invite les fidèles à prendre la Vierge Marie comme, euh, comme modèle. Donc, euh, à lire euh, dans euh, le journal Sud Quotidien, Record, euh, le journal sportif maintenant le plus lu donc, du, du Sénégal. Nous n'avons que revendiqué non. Donc, encore une largesse de la Fédération sénégalaise de football. 115 millions en cadeaux au Lyon. Donc, et puis, auteur d'un doublé en super coupe Sadio Mané maintient Liverpool euh, au top et on ne comprend toujours pas lu tax euh, jëlul ma euh, yenn raaya yi ci wàllum international moom Sadio Mané Afrobasket féminin demi-finale et Lyon retrouve le Mozambique alors c'était c'était la une euh, voilà c'était la une des journaux de ce matin euh, et puis euh, revue de presse complète ce sera dans le journal de 13h bi nga xamante ne rédaction bi ñoom ñoo ñu koy rek daal di indil ñëpp a ngi pare si ginnaaw nag pour ànd ak ñun ci yeewu leenu bés bi ci deuxième partie bi lay doon mais tonton Mac peut-être avant cela ñu bégal suñu mbokku téléspectateurs yi Titi xam ngeen ne dafay dem ci événement bu am solo suba ca Grand Théâtre Ndindi mu rendre ci hommage ki nga xamante ni moom mooy Serigne Abdou Karim Mbacké après la pub on revient

merci à la régie pour cette page de publicité gis ngeen euh, Serigne Abdou Karim hommage bi nga xamante ni Titi rendre na ko ko yëngal na euh, sànq régie ak plateau bu euh, bu jëngal na ko bu baax donc juste pour vous dire que ne que Serigne Abdou Karim voilà lu mu laal la gën lu mu laalu lu mu bokk gën lu mu bokkul donc par la même occasion di leen wax ne suba ci samedi ji Titi dafa woote Grand Théâtre kon nag na ca ñëpp dem ci kanam incha allah danañ ci rek daal di dellu si 9 jot na nag ba teg ñaar ñaar fukki simili di 20 minutes ñu ñëw nag ci li nga xamante ni moom mooy deuxième partie euh, bu euh, euh, yeewu leen Serigne Mamour Mbacke xame ngeen ko bu baax a baax ci plateau bi nga xamante ni mi ngi fi woon defoon nañ ko ci vendredi bi li ñu passé mu ñëwaat nag tey jii ngir ànd ak ñun bégal leen waxtaan ak ñun ci wàllu diine sëñ Mamour maa ngi lay nuyu di la ziar. Euh, maa ngi lay fay soxna Dieynaba di la delloo siyaar bu baax it di mhm. nuyu suñu mbokki téléspectateurs yi di leen baalo ak bu baax ci bis bu tedd bi nga xam ne moom lañu génn mhm. di profité di ñaanal bu baax euh, suñu kilifa yi di yi suñu mm. borom guddal seen i fan te seen i cër te sàmm leen aar leen mm. ba njaboot gi ñu jiite yàlla def ci ñoom barke euh, di ñaanal Sénégal gi yëpp yàlla defal leen jàmm di ñaanal itam ñi nga xam ne ñi ngi ci yoon bi jógee ca Màkkatal Mukarrama mhm. rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ñi ngi fii ci kër gi yal na leen suñu borom indi ci jàmm bu ko defee ñu mën a nekkuwaat ci seen weti njaboot suñu borom nangul leen seeni aj te mhm. nangul leen mhm. nangul ñëpp it ñi demagul it yal na yàlla def ñu dem ci at yi ñu dëgg <laughs> ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu soxna ñaatam suñu xarit euh, ñu ngi koy ndokkeel bu baax a baax di mhm. nuyu ñëpp en tout cas jërëjëf dinañu waxtaan ci kanam euh, ci wàllum euh, kon euh, diine xam ngeen ne nag sermon tabaski yi dinañ ci ñëwaat mais surtout li nga xamante ni moom mooy ñibbisi màkk bi ak yenn puukare yu muy rek daal di àndal ci kanam kon danañ ko daal di waxtaanee ak Serigne Mamor Mbacké ñaata maa ngi lay nuyu bu baax a baax. maa lay fay Zeyna di nuyu oustaz Mamor di nuyu téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan comme ni ñu ko mm-hmm. defee woon rek delluwaat ziar leen di leen di déwénati di baalu àq ñëpp tey baal àq ñëpp ñu ngi lay mm-hmm. nuyu. en tout cas euh, très un réel plaisir euh, euh, kon bokk ak yow plateau bi ci kanam euh, jàpp sa fula. Mhm. décomplexé dinañ ci ñëw ci kanam fan nga ñu yóbbu. ci kanam tuuti jeyna ba dinañ doxantu seeti benn xale boo xamante ne day dund ak laago. Mhm. comme ni ñu ko xamee waxam leerul waaye melokaanam tamit moo tax itam mu bàyyi école. Mhm. li mu gën a bëgg nag mooy defar ay perle ay caq ak ay ah, jaaro. ci kanam tuuti dañ leen wanale ak moom li tax nag ñu andiwaat ko ndax demoon nañu fa li tax ñu andiwaat ko. mooy dafa am benn foire bu mag boo xamante ne dañ koy waajal te ñuy dund ak laago rek ñoo fa war a nekk mhm. di wane seen ay liggéey di woon nit ñi pour ñu dem euh, daal di koy seetaan kon ci kanam tuuti ñu dem seeti la petite Ouli mhm. euh, Ouli Mata Diop ci kanam tuuti Ouli Mata Diop euh, donc vous donne rendez ci kanam pour wan leen li muy def kon en terme de perles mais aussi ñaatam wax li nga xamante nii noonu la def parcours am pour euh, mën a euh, daal di génne la tête de l'eau comme on di euh, généralement Sophie mi ngi ci ginnaaw di pare pour ñëw ànd ak ñun ci yeewu leen togg comme on dit <laughs> généralement mais tey dafa nekk bés bu spécial parce que mm-hmm. xam ngeen ne kenn ci ñun il y a la fi rek kon bàyyeeku woon génn àdduna mm-hmm. muy Eva Mbaye Eva Mbaye nag euh, euh, mu nekkoon koo xamante ni euh, kenn la woon ci groupe Futur Média ba tax sax boo leen di déglu journal généralement mu nekk ca RFM da ngay dégg tout le temps journaliste bi wala présentateur bi wala animateur bi ne yéen a ngi ci studio Eva Mbaye bu rajo Futur Média donc moom lañ ko duppee il y a 15 ans donc ci waxtu wi c'était en 2004 ñu ngi doon kon daal di jooy ki nga xamante moom mooy Eva Mbaye euh, donc 2004 euh, 2019 euh, donc ça fait 15 ans Eva Mbaye kon dëddu àdduna di ko ñaanal bu baax a baax di gën a yeesal ñaani mm-hmm. moom Eva nekkoon nit ku lewet ndaxte mm-hmm. ñun xamoon nañu ko bu baax ñaatam Dieynaba dama lay dëggal li nga wax di wax ni mm-hmm. rek yàlla rek mooy Karim parce que yéen ñi dund ak moom xañ na sax mës ngeen koo gis mës ngeen dund ak moom loo xamante ne ci biir studio bi waaye man mi nga xamante ne dañoo ñëw ni ma kaay yeggale liggéey bi te jotuñu xamante jotu ma ko déglu Euh, maanaam te xamante euh, mu nekk koo xamante ni ci li nit ci di wax rek euh, nit la koo xamante ne mi ngi doon def liggéeyam normalement mhm. bëri ay soppe torop bari ay fans waaye tamit ci kër gi ñu du ko doon chuchoté mhm. comme ku yore sa benn bébé kër gi ñëpp bëgg ko yàlla jël ko noonu mu nekk loo xamante ni également naqar la woon ci groupe Futur Média deux ans après ci laa ci laa ñëw foofu ngir yeggale liggéey bi ndax mhm. xam nga ni moo doon def nuy des fans bi ma ñëwee ñu ni ma liggéey boobu man maa ko war diis Dieynaba mhm. nekkoon lu diis loo xamante ne parce que nit koo xamante ne nit ñi dañ ko xamoon sopp ko fan si et tout ça ñu ne dem na dafa am kenn koo xamante ne dafa war a ñëw remplacer ko donc loolu ci déggin voilà donc mu nekk loo xamante ne dama koy sant yàlla bu baax a baax a mhm. waaye tamit ba tey di ko jaale mama Rakki di ko jaale seen mhm. waa kër yi waa Ndar ndax xam nga ne at bu nekk dañ koy dañ koy dañ koy ñaanal euh, ci 15 jours bi fële ca Ndar géej te xam nga ne démb la la génn génn àdduna mhm. donc jeyna ba mu nekk loo xamante ne tey ji groupe Futurs Médias daal mhm. wax dëgg yàlla euh, at bu dekk également comme ni nga def nii dinañ ko fàttaliku dinañ ko ñaanal dinañ def loo xamante ne nii euh, fa mu nekk gënal ko fii nga mhm. xamante ni euh, fi la jóge jeyna ba ñu wax ni rek waaw mami Sabel madame Guèye sa Adja Sabel donc ñoom Rama Soumaré voilà c'est ça bëri woon na ay ay ay ay ay soppe vraiment oustaz sëñ Mamor dëgg la jërëjëf soxna jeyna ba àdduna moom noonu la ko suñu borom doon bindee mm-hmm. euh, waykat bi damay dégg muy faral di wax naan demal maa ngi ñëw la dëgg la euh, alxuraan moo ne euh, dee moom saa su nit ki dundee ndax dafa mel ne terrain buy daw la. Mhm. Euh, gaar bu mu àgg dana am ñu wàcc am ñu yëg dëgg euh, at mi nga xam ne Eva ci la wàcc bëri na at moo bëri na ñoo xam ne ci la ñuy judd. ci la ñuy judd dëgg la euh, bi nga xam ne ci la ñu koy feete bëri na ñoo xam ne faatu nañ dem fekki ko. Mhm. waaye bëri na ñoo xam ne judd judd nañ itam. Mhm. war a war a a dund seen dund. loolu la muy teg tegtale mooy yàlla suñu borom moo bind nañu àddina. alxuraan daf ne kullu nafsin saayixatul mawti. maanaam benn bépp bakkan boo xam ne yaa ngi dund. nee na dana ñëw ñu tëral la nga faatu dootoo man ci sa bopp dara euh, dafa mel ne ba ko waxee dañuy wax ni euh, parce que bakkan la wax te àdduna ku ne xam ne leneen lu dul bakkan mi ngi fi hmm. suñu borom teg ce ne kullu man ad kullu kullu kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika sul jalali wal ikram mooy lépp ci kaw suuf dana fi jóg hmm. mu teg ce ne kullu shay'in haliku ila wajhihi lépp dana fi jog ba mu des jëm ni suñu borom subhanahu wa taala hmm. la muy tegtale mooy euh, ñi nga xam ne ñoo dem seen ñàkk fulla wala seen ñàkk mën a lijjanti wala mhm. seenu ñàkk man business wala seenu ñàkk am xaalis taxul ñu dem mhm. parce que nit am na lu ne dem nit mel na nu ne itam dem ñun ñi fi dese du question ni lijjanti wala am baranlo moo tax ñu des fi parce que mhm. suñu borom moom branloo àggu fa nit ki saa su waree dem dafay dem euh, laataat yi ku moo illaa baxtatan buy ñëw it dalay bett euh, du question ni nit ki dafay waajal ne xaarama toog xaar dee Eh, soog a faatu waaye buy ñëw dalay fekk ci loo xam ne yow mësoo xalaat ne bis dana ñëw nga faatu dee ñëw jël la yóbbu la bu ko defee sa ginnaaw ñoom ñooy rendre compte ne ñoom yow yow faatu nga waaye yow da ngay jekki jekk gis sa bopp ci xay na beneen dund boo xam ne moom la ñuy tuddee dund yowmal xiyaam tey nag bu xasee bay ñëw day ñëw dara mënu koo téye hmm. dee moom bu xasee bay ñëw foo manti demee dan la fekk hmm. maa ngi fàttaliku benn histoire bu ñuy nettali am euh, waaj woo xam ne malakul mawti dafa mas a ñëw di jël si ruu gi hmm. ma fàttali ne malakul mawti dañ ko daan gis bu masaana ñëw ci barab di jël si nit ko faatu ñëpp dañ koy teg bët xam ne malakul mawti mi ngi nii taxaw ñëpp di ko gis mm. mais ki mu war a jël bakkanam kooku rek lay fixé di ko xool bi mu dikkee waa ji mu ne ko jële ma ci barab bi yóbbu ma ci barab bu gën a sori parce que malakul mawti mi ngi may mm-hmm. mu ko yóbboo foofu malaaka bi fekk ko fa man sax jaaxle woon naa parce que man maa ngi la war a faate Gambie te yow yaa ngi Sénégal mm. te waa ji dane woon yow yàlla maa ngi lay ñaan nga léegi boole ngelaw li mm. parce que malakul mawti dama ko ragal mu ne ko bi may ñëw di la xool xaw ma nan laa la war a rayee parce que gàmmi ga war a faatoo te yaa ngi Sénégal mm-hmm. mais nga ñaan nga yàlla mu indil ma la fi kon wakkatu bi dajee gestu la la muy tegtale muy nit ki fa war a faatoo oh. ala kulli xaalin fa lay faatoo ak mm-hmm. mm-hmm. jaas li ñu naan deedu jaas mm-hmm. du retard it man nga war a def émission heure bi jot nga nekk ci leneen wala nangam ak nangam mais dee moom sax mën na ñoo daanu mi ngi yàlla na yeex kon saa su xasee bay ñëw day ñëw kenn mënu koo tee ñaan mënu koo tee ab sëriñ mënu koo tee ab yonente mësu koo tee parce que ku fi jaar lu mu màgg-màgg ñi ñuy fàttaliku ñëpp kenn nekkatu fi dëgg la ñëpp a ngi ci biir suuf kon nag ala kulli xaalin dana ñëw la la waajee la sëñ Tuubaa waxoon waaje rek ba mu dikkee ne ko sëñ bi ne ko dama dama laa bëgg a xamal ku jëm àjjana ak ku jëm sawara naka lay mel mhm. mu ne ko bismillah mu ne ko jëpp jëf joo xam ne yaa ngi ci te bu dee ne woon asalaamaaleykum nga ne ko aleykum salaam bismillah jekk naa nee na ko yoonu àjjana nga xamal ne yaa ngi ci mhm. yoonu àjjana mhm. daan ne ko jëpp jëf joo xam ne yaa ngi ci te bu dee ne woon asalaamaaleykum nga ne ko may ma ma defaru ji jëkkaguma sëñ Tuubaa ne ko yoonu sawara dëgg la kon la muy tegteel mooy nit ki bu bëggee jëm àjjana ak bu bëggee jëm sawara na xool ay jëfam bu gisee ay jëfam kenn jëf ji mel na xam ne jëfi waa foofu dañuy bàyyi di juger nit yi kon loolu nañ ci bàyyi xel te bàyyi di juger nit parce que mm. kenn ku nekk yaa xam sa bopp sa diggante sa borom mm. kenn ku nekk yaa gën a jege sa borom kenn ku nekk itam yaa xam li ci saxool xol mm. eh, li ngay wane ci kaw bu dee lu bon taxu la bon li ngay wane ci kaw bu dee lu baax it taxul a baax loolu nag tegtal bu yaatu la mm. léeg-léeg nga gis nit koo xam ne xëy na colinam wala nangam ak nangam mën nañu jàpp ni kii ku bon la mm. fekk xol ba moo gën la ñëpp xol mm. suñu borom xol lay suisee léeg-léeg ñu gis nit muy muuru di julli juróom nangam te fekk moo yées ñëpp parce que xol bi yéenewul kenn lu baax bu sañoon ñëpp dee moom mu dund bu sañoon ñëpp torox moom mu tedd moom kon loolu nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal nag parce que loolu la ñu desee dañuy wax ne itam nit ki Euh, boo ñaanee mm-hmm. li lay xamal ne sag ñaan nangu na wala nanguwul mm-hmm. mooy la nga ñaanoon da koy fàtti bu fekkoon da nga am 1000 francs sa téléphone nga bëgg ma envoyé crédit 900 francs boo ma transféré ba nopp boo xoolee gis 100 francs na nga xam ne dem na mais li feeg yaa ngi gis 1000 francs yi ci sa téléphone demagul moo tax kon jëf ju baax boo ko jëfee li feeg mi ci sa mm-hmm. xel nga di ko xalaat jëf ja nangoogul saa soo ko fàttee nag yëgal na jëf suñu borom nangu la kon nag ñi ngi ñaan soxna Awa Mbaye moomu yàlla na ko yàlla yërëm te dolli yërmande ci kawam dolli ko njëggal mm-hmm. ñi faatu itam nañ leen di ñaanal njëggal ak yërmande nañuy moytu rek diw yàlla na ko yàlla dolli ay leer mm-hmm. dolli ay leer mooy ko texe ba noppi mm-hmm. waaye nañ leen di ñaanal njëggal ak yërmande parce que loolu la ñu soxla fa ñu nekk kon yàlla na ko yàlla jëggal yàlla na ko yàlla yërëm ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam barke Seexul Xadim mi mu yaakaaroon Eva Mbaye amoon nañu nag yéene ànd ak euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, Daouda Diouf euh, nekk directeur des programmes bu Euh, FM euh, mais euh, téléphone bi moo xaw a sant Diallo mm. mais xam naa ne ci kanam incha allah danañ ko woo wala saa yu yembee rek ngeen jox ñu ko de façon Eva daf ñu mës a donc ci suñu ci suñu àdduna moom ak ñeneen ak ñeneen mm. kon comme ni ko oustaz waxee ñu ñaanal leen bu baax a baax yàlla wis seen kaw yërëmande gu mat ñoom ñëpp Mm. bu ko lim juum euh, waaye suñu xel day dem cu baax a baax ci oustaz Donde mm. euh, mi nga xamante ni kenn la woon tamit euh, ci ñun di ko ñaanal fi ñu ne mu gën lool lool lool lool fi ñu jógee loolu mm. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def kon di leen ko ñaanal tey nag bésub 16 août ñuy fàttaliku 15 ans gannaaw ba Eva Mbaye dëddoo àdduna kon tonton tonton Mack alors émotion yi day bari ñaata bari voilà <laughs> mais euh, voilà noonu la. Euh, comme comme ah, comme gis nga gis nga gis euh, nga soxna Diena ba. samay fàttaliku studio mm-hmm. da daan animé samedi. Mm-hmm. mais guddi la daan anime dama daan wàcc. ëllëg mm-hmm. ma ñibbi waaye damay toog ci studio am rien que pour ambiance donc loolu ñu ngi koy fàttaliku tooñu mi doon tooñ ñoom Mamadou Ibra Kane ku nekk mu am ci yow voilà. nitu nitu nitu àjjana. moom nit moom bu demee rek li ñuy wax ne lu ne mën na effacé wu. dëgg la dëgg la mais souvenir tur mën na effacé wu jëf. Euh, nu mu tuddati alal. Mm-hmm. man-man daraja yëpp. mais jëf ji nga jëfoon ci àddina moom du ma sa effacé mm-hmm. ci ko defoon junniy at ci ginnaaw ba tey ñu ngi koy waxtaane mm-hmm. junniy at ci kanam ba àddinay tukki itam kenn du ko mën a fàtte mm-hmm. kon la muy tegtale mooy yaatu wootam la baax baaxam la woon euh, sellam la woon yéene nit ci ñëpp jàmm parce que dañuy wax ne nit boo gis nit ñi di ko fréquenté jëru ngay laajte mooy kan mais oustaz dem nañ ba ni xam ba koo gis nit ñi di ko daw xol ba ni nit ki nit bu baaxee sax ba baax ba baax dañ naan yàlla moo ko gën a soxla lu ci gën a bëri waaye nag baax a gën baax a gën ndax ndekam seytaane dañuy xëccoo ak suñu borom hmm. te yàlla li mu bëgg ci ñun mooy ñu baax seytaane li mu bëgg ci ñun mooy ñu bon hmm. ngir ëllëg mu tàbbal ñu sawara hmm. parce que seytaan da lay dikk ajanaam suñu borom dig la ajjanaam seytaane fam lay joxeñ naan la fii mooy ajjana foofa sawara la suñu borom fam lañ joxeñ ne la fii ajjana la foofu mooy ajjana kon nag jéem a la góorgóor nga jaamu suñu borom loolu nag Euh, bëri na ñu koy wax ñoo xam ne xëy na baat boobu bu ko ñëpp gëmee mm-hmm. la muy yàq moo ëpp la muy defar ndax dañuy gën ne comme que boo baaxee da ngay faatu mm-hmm. kon xaara may bon ñii ne euh, kalaasu euh, Pape Doudou gi ne xaaral may bon ak a baax mm-hmm. <laughs> bu ko defee xëy na yàlla des fois mu soxla ma des fois adduna soxla ma ma man fi di des waaye ne déedéet am nañu fi baaxoon ba gën ñëpp te teewul gudd nañu fan ma jox la misaal ku ñuy wax soxna asawaalo ci maam yi askan waa Mbàkke ak ak si ñëpp dund na téeméeri at ak fanweer dëgg la te jaamukatu suñu borom bu mag la woon mm. jàngalekat alxuraan la woon kenn gënu ko woon mm. te dund na téeméeri at ak fanweer cent trente ans la mm. mooy baax taxu la dem ñu bon ñi itam ñi ngi ñi kon kay yow baaxale parce que baaxale war bu fekkoon ku bon du dem kon eh, dooma sa rek kenn ko bon faatu na ngi dégg yëfar yaa ngi dee nit ñaa ngi def lu bon di dee ah kon loolu la eh, ñu bàyyi xel ne lii bis la boo xam ne kenn ku nekk da nga ci am sa bis mm-hmm. gis nga bis dana ñëw ñun ñi toog fii ci palaato bi kenn dootul dox ci kaw suuf mhm. ñun ñëpp ñu ngi ci biir suuf gis nga caméraman yi caméra caméra yii ñu gàddu mhm. bis dana ñëw ñeneen a koy gàddu mhm. ñee ci rési ba toog bis dana ñëw ñeneen a fay toog ñee ci bunt bu bis dana ñëw ñeneen fay nekk ñii taxaw ci kanam caméra yi bis dana ñëw ñeneen a fiy taxaw waaye ñun ñëpp day fekk ñu nekk ci biir suuf ah léegi nag bis booba nañ ko waajal yàlla na yeex la ñuy ñaan waaye ala kulli haalin dana ñëw kenn ku nekk da nga am sa sa sa fajar wala sa yor yor mhm. wala sa bëccëg wala sa mhm. ngoon wala sa guddi ak fu mu munti doon te te te set suur yi benn la ciy doon mhm. jàppal ni bu ci ñëw rek yaakaaral ni bii lay ñëw ndax kenn ci boroom xam-xam yu mag yi dane woon nit ki bis bu set dana dund dana noyyi cent vingt quatre mille noyyi waaye benn bu ci nekk na jàpp ne bu ko nooyee beneen du ci topp bis bu mu paasee na jàpp ne beneen bis du ko jëf parce que nit ku nekk am na ab zodéem ah, wala vendredi samedi ah, wala dimanche lundi wala mardi wala mercredi mm. kon nag jàppal ni yi benn la ci tey la lan vendredi comme man samedi laa war a faatu bu fekkee wax ne moom laa war a faatu bala ma ñuy kii ñaama da <laughs> bu fekkee laa war a faatu mhm. naa jàpp suba la war a doon dëgg hmm. mhm. bu fekkee Pape Doudou ab dimanche la mhm. na jàpp ni ginnaaw suba a doon bu ko defee bu ko defee bu fekkee Jeynaba moom it yàlla na yeex ab di ñëw la ah loolu la bu ko defee diggante bi du fa def lu bon parce que nit ki boo xamee ne day faatu def lu bon li tax ñu naan nit dellu na ca yàlla ak bu nit faatoo ñëpp dañuy baax damay wax ne sax waxuma ko yéenewuma ko kenn mais gis nga bu yàlla rayoon nit ci ci benn koñ ba nit ñi tàmbali ragal yàlla ak a julli mën naa fa rayaale ñëpp parce que ñëpp dem àjjana mhm. parce que moment boobu ñëppay ragal yàlla kon ñëppay seet ñëppay yore kurus ñu daawul muuru dañuy muuru dañuy muuru de xëy na bu bis bi jàll ñuy commencé di catal di génne cat li ba mu jeex koloo ko ci mhm. ah nangam nangam bu ko uh-huh. defee xëy na seytaane daal di placé waat place ba mu nekkoon uh-huh. waaye daal kon li li mat a tegtale mooy kenn ku nekk daal di nga dem comme que dem gi dana am daal uh-huh. fexeel ba nekk ci jëf joo xam ne buy ñëw fekk la ci ngërëmul yàlla bu ko defee bu ëllëgee lañ lay ñaanal fekk yow yaa nga ca woon yaa nga ca jërëjëf sëñ Mamor euh, euh, tonton Mac euh, Youssou pour euh, Tidiane Niang gis nga pour euh, euh, bégal leen bu baax a baax gannaaw bu 8h jotee ba teg fanweeri simili ak juróom ñaar di leen fàttali ne yéen a ngi ci ba léegi yeewu leen nekk la première matinale du Sénégal gunge leen nag incha allah ba 11h ngir matandi lépp lu fiy tukkee kon ci wàllum xibaar mais aussi ñu junju leen waxtaan ak yéen surtout ci ci wàllum diine ci wàllum diine boobu sax la ñuy desandi parce que xam nga ne actualité bi. tabaski bi la mais aussi aji màkk bi la yaakaar naa waa màkk moom ñi ngi dajale seen ay bagages bu ñibbee. waaw fi mu toll nii de mhm. dellusiwaat ci seeni réew. waaw ña war a delluwaat ca seeni réew it ñoom it ñu ñëw. ñu war a mhm. ñëw Sénégal ak ñi war a dem feneen. Mhm. ni ma ko waxee léegi ñaanal leen ñu ñëw. Eh, léegi nag li ci topp mooy eh, xëy na dañoo aji woon màkka. waaye na nañoo xam ne dañoo defi woon farata. farata mooy comme par exemple yow mi julli tàkkusaan ba sëlmal kee dafa war weeru koor ba mu jeexal wala nangam ak nangam xay na nag li ciy différence bi mooy dañoo demoon dañoo demoon fu sori kon manis na cee déggaali tukki kon ki tukki ba ñëw manis na koo ganale loolu moom l'islam terewu ko araamul waaye nag euh, dafa am lool ci diine dafay mujj doon aada ba mu ëpp te Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum dafa waxoon lu am solo dani woon Sénégal dañu roy dàq wala dañoo xëm te muy mbir bu nekk dañ ciy ëppal dañ ciy dem ba mu ëpp def ci loo xam ne xëy na bokkutoo nag la ca lislaam santaane woon parce que ki dem màkk ñëw nañ ko ganale waaw nag en tant que dem bay ay ndawtal ak yeneen yu kenn xamul sax di ci am mm. jël ay carnet di bind parce que loolu nag xam nga problème bi fan la commencé mooy booy dem booy dem waaw mooy yi ngay ngay wër di wër di tàggoo loolu nag lislaam da koo tere de ah? dem màkk di wër di tàggoo diine daf koo tere mm. di wër di tàggoo parce que lan moo tax ngay wër di tàggoo mooy ngir luñ la jox kii jox la benn cinquante mille mais ak nangam am ñoo xam ne sax boo demee dañ lay tëju waaw léegi yow ah. yaa ngi tàggoo da bëgg ñu jox la léegi ki la jox kay boo dikkee dina ne la jox ma hmm. parce que jox na la xaalis bi ngay dem boo dikkee dana jox ma matériel mais am na ñoo xam ne bi ñuy ñëw ci avion bi ñi ngi toog avion bi di naaw mais bu sañoon mu am 72 heures ci yoon wi parce que hmm. bëggu gaaw a agsi hmm. ñi ngi xalaat li ñu war a fekk fii Sénégal eh. problème bi yaa ngi toog ñu lay ganale mais am na koo xam ne bu ne tëll sa fit bépp dem parce que am na lu bëri lu mu la joxoon loo xam ne yow am na lu muy xaar te wóor na leen yow indiwoo ko parce que yow dem nga màkk yow dèjà yow say problème ma ngay jënd ay lan mooy système bi léegi yow booy dem nan nga nan la ñi war xamee ne da dem màkk bu nekkee waroo tàggoo mën ngaa tàggoo dama du ma ne tàggoo bi jam mais nii ñuy tàggoo fii Sénégal mooy dem di tàggoo ngir ñu jox la wala ah, am ñoo xam ne sax tàggoo bi wayaan lay doon mm-hmm. duñ tàggu n'importe qui duñ dajeeg benn Mamour Mbacke ñu gis ne na yëre lu bëri duñ ko tàggu duñ tàggu ñaatam ba. Mm. <laughs> waaw ña ñu tàggu mooy ñi nga xam ne buñ leen tàggoo xëy na dara dana génn. waaw même buñ taseeg mën nañoo taseeg seen mbokk mu leen jege. mu ñu war a tàggu mais dañ ko koy nëbb. <laughs> dañ koy nëbb ne nit ñi ku ñu xam fa nga jëm doo àgg. Mm. mais milliardaire yi ku ñu xam di nga àgg. Ah, daanaka noonu nga <laughs> loolu moo tax ma ne kon bi. boobu dañ koy bañ defal ngir yàlla. parce que comme que yow yaa ngi dem parce que bu fekkee da ngaa jël xaalisu Sénégal gi yëpp da ngay dem màkk boo ñëw indaal leen nga fay nit ñi waaw mais boo demee màkk ndax da nga fa am temps wu lépp nga di ko jënd mm. est-ce que yow sa ak dara mat tukki da nga pour jaamu ji yàlla da lañ naan ko say réal jeex say ree jeex mm-hmm. walaay bi jeex na foofu te problème bi mooy seeni réal jeex na ngay kalkin lii kat ko lekkee duñ mën a jëndal kii duñ mën a jëndal kii nangam ak nangam dëgg la de tam aj màkk jaamu yàlla la mm-hmm. yii ñu ci dugal yépp bokk ci mm-hmm. nang ko man nag a dem ba ngay dem màkk bañ la joxee bee màkk bu la leeree ne yow mii sa kër amoo loo fi bàyyi. Mm. bul dem bol dem jaayal bébi nga toog. wala ki lay jox bébi ne ko jox ma ko xaalis mm. wala kat bàyyi jox ma parce que bëri na ñoo xam ñi ngi lay yóbbu màkk mm. dañ laa war a jox loo bàyyi sa kër waaw dañ laa war a jox ne la temps kër ñaata ngay dépassé nga ne temps temps nga fay def léegi am lii nga bàyyi ko sa kër nga dem ba ñëw que nit ki bu demee màkk bàyyi waa këram di sonn loolu baaxul bu fekkee bàyyi na bor yu a fay loolu baaxul kon nañ ci bàyyi xel bëri na ñoo xam ne nag xëy na buñ demee ba ñëw bëgg a jàpp ne ñoo gën ñëpp wala turu Adja wala mhm. Alaaji nangam nangam bi ko puukarewu ci kur nag ci ko te pourtant loola sax ba nga koy tudd mooy moment bi nga nekkee ci aj gi mhm. maanaam bi nga nekkee en ci aj gi boobu ngay tudd Adja wala Alaaji mhm. waaye boo xasee ñibbi tuddatoo ko boo xasee ñibbi si tuddatoo ko loolu la diine wax ok borom xam-xam yi ustaas yaa ngi seetaan diiran bi nga nekkee ci aj gi lañ lay wax Adja wala Alaaji ah. waaye bi nga ñibbisee tuddatoo ko waaw kon lu tax ñuy continuer di wax nit yi ajaratu aja ajaratu parce que Sénégal ñoom Sénégal ñoom dañuy jël benn affaire boo xam ne jaamu yàlla la ñuy jël ko puukare def ko yëre sol ko di ko dara jeewoo ci kaw nit ñi ah, ndax ñu bëri jàpp nañu ne ka aji màkka ba ñëw moo gën ka ajiwul màkka ok te pourtant non aj màkka farata la ponk la ci diine lislaam comme julli comme koor comme natt asaka comme tudd mm. yàlla yooyu kese la moom mooy cinquième bi jaamu yàlla la comme yëpp d'accord waaw léegi nag kon ki nga xam dafa dem màkka ba ñëw ak ki julli tàkkusaan ba sëlmal ñoo bokk àtte mm. kenn gënu ci kenn parce que jaamu yàlla la mm. Mm. léegi nag bu demee ba ñëw mën nañu ah diw kat demoon a màkk ñi nga xam ne yaakaar nañ ci moom barki loolu moo tax nganale bi xëy na l'islam di ko naw ñi nga xam ne yaakaar nañ ci moom barke parce que fa mu jógee dëkk bu sell la fa mu jógee barabu nangu ko ay ñaan la fa mu jógee itam ku fa jógee set ciy bàkkaar mm-hmm. te képp koo xam ne suñu borom def nga set ciy bàkkaar lum la ñaanal suñu borom dana ko nangu mm-hmm. koo xam ne set na wi ci la muy tegtale mooy Euh, mi ngi mel ne ki nga xam ne mooy liggéeyee palais présidentiel Macky Sall woo ko ne ko yow kat jox naa la ndigalu loo ma wax ma def ko. Mm. kooka boo ne ko damaa bëgg nangam ci président bu ko waxee mu def ko. parce que digganteem ak président amatul benn kon ki aji ba ñëw intermédiaire amatul digganteem ak suñu borom. Mm-hmm. Mm. léegi digganteem ak suñu borom seen na wécc. Mm-hmm. lu mu wax yàlla da koy def. Mm-hmm. léegi nag kooka boo dikkee tàllal say loxo ne ko ñaanal ma nangam. lum la ñaanal suñu ko nangu. dëgg doo xam ndax céet la. Ah, doo xam ndax ngénte la. doo xam ndax yeneen yi ci des xaw ma yu kenn xamul. doo comprendre parce que ki demoon màkk ba ñëw moom dèjà rek moom xamee xamee satu ko. moom dafa waroon a muuru ba sell. Mm-hmm. sol lu jot. muuru aw yaramam ba xar kanamam kese di feeñ. Mm-hmm. mu toog. Mm-hmm. waaw xaw mu may këb la xaw ma loolu moom ko kii la moom bu soobee yàlla dootoo ko defati waaw. a gis nga gis nga gis nga gis nga soxna Jeynaba gis nga soxna Dieynaba bu fekkee da ngaa toog. da ngay waaj a dem màkk mbikk waaw mais gis nga mais make bi yooyu moom bu fekkee dangaa toog nii defaru ba jekk ku la xool ci sa jëmm gis ci àdduna. Uh-huh. boo demee màkk ba ñëw ne cëpp. ku la uh-huh. xool yàlla rek la war a gis. dëgg la. ci sa image ci sa jëm ci sa melokaan da ngaa war a wane ne man ca yàlla parce que nit ki fu mu jógee uh-huh. bu di koy image boobu la war a indaale la dëgg la image boobu la war a indaale ki dem France ki dem Italie ki dem Amérique mais ki jóge Màkka bokkul man man de gis naa gis nga xamante ko commandé te de Màkka la ñuy jóge waaw yooyu moom <laughs> a boole diine ak adduna parce que diine ak adduna nag boo ko jaxasee sa mbir day yàqu mi ngi mel ni bëgg lu baax ak lu nekk boole lu baax lu mi ngi mel ni nga bëgg a boole ndox bu tàng ndox bu sedd bëgg a boole sawara ak ndox mënuñoo ànd alaa kulli xaal benn ci nit ki dana dem liggéey xam nga benn waykat euh, ci taalifkat yi da doon wax ne kuy ñaw fa sow wëñ nga mboros ma jagadi xam nga luy mboros <laughs> jay na ah. mboros waaw mboros luy mboros bokkut ak mboros xaw ma ñuy fecce gi xamul de mbaras mbaras la ñuy waaw xëy na waaw mboros du mooy nga jàpp ko te du dëgër non non mboros mooy booy ñaw te du dëgër ngay jël puso bi di di boole lu bëri di dugal puso bi di mboros di mboros ah, ba mu waaw léegi nag bu fekkee da ngaa mboros lu bëri te takkoo ci ginnaaw façon ci ginnaaw boo xëccee léppay roccee <laughs> moo tax mu ne des nit dana liggéey liggéey liggéey lu bëri maanaam mboros lu bëri bu xëccee lépp rocceeku mooy danga ngaa dem màkk def lu ne ni cëpp Sénégal liggéey bépp yàqu daal di tasaaro uh-huh. moo tax kii dem màkk aji màkk aji màkk ak tukki màkk day ñetti façon yu bokkul Sénégal uh-huh. nag ñu ci bëri mëralës mëralësement ajji màkka la ñuy def ak tukki màkka mhm. aji màkka mooy dem ngir aj aji màkka mooy dem xooli lu fa baax nga yeenu indi mhm. tukki màkka na mooy dem xooli mhm. gis naa kaaba gis naa barabu yonente bi gis naa nangam gis naa nangam boo dikkee bëgg rey Sénégal yi mel ne yow danga dem ba gis yàlla <laughs> te loolu bokk ci li nga xam ne moo tax ko dem ngir aji amoo sax jotu xool yenn yi mooy ki kàbbati julli ci jumaa ji rafet ji rek mm. bu sëlmalee naan jumaa ji gis naa bii di gis naa nangam bu noppi dañuy waa yow da nga doon julli wala da nga doon xool ah, mais am na sax yeneen tendance yu xew léegi yooyu nañ ci bàyyi xel mais am na sax yeneen tendance yu xew yi léegi sëñ Mamour mi nga xamante ni léegi bu ñu ajijee dañuy mm. jox léegi euh, seen waa kër yi pour ñu jënd leen fii ay sérité mm. euh, juste pour dire que léegi euh, aju màkk bi c'est vrai diine mi ngi ci mais aussi yenn yenn coono yi dinañ ci ñëw ci kanam mm-hmm. incha allah juste peut-être la ñuy jënd bu ñëwee ne màkk lañ ko jëlee ah. ko ko dañ ko yëpp coono bi sax moo koy andi parce que le fait est que nga dem màkk rek ba pare xalaat ni dangaa mën a joxe loolu rek déjà problème la fekk bokk ci mhm. euh, en tout cas dinañ ci ñëwaat euh, euh, ci kanam sànq ñaatamba mi ngi ko doon junju mhm. tey nag dañuy seeti benn xale bu nga xamante ni passion am la ci wàllu perle la ko rek daal di jëmee mhm. pour gën a mën a extérioriser peut-être sentiment yi nga xamante ni mi ngi ko am ñaatam jàpp fulaam la def te seen waa kër jàppale ko ci lool mu ngi tudd Oulimata Diop kon duñu dem lu dul seet yëkkati ko dellu si waat ci commentaire yi yow ey yow dangaa biddan topp di snap fili rek naa ne amélior amélioration bu bari am na si euh, loolu moo tax ma fexe ba yow gis la parce que gis naa ni ngay jàppalee xale yi ba génne leen si situation ñu mën a bokk si nit ñi parce que bu dul dara tamit ay nit lañu comme ñun dañu am un peu de truc dañu am tuuti handicap rek mais ku leen jàppale dinañu mën a def su ma sañoon ñu def comme man parce que doomu mel ni kenn du leen am du leen nëbb baaxul bu leen nëbbee du ñu xam dara di leen génnee di leen boole si nit ñi uli su may dem restaurant fu ñooy ay xaritam fu may dem dama koy yóbbu lu may def moom laay jiital dama koy kii bu njëkk ba dafa ragaloon mais léegi euh, comme ni ma koy génnee nii fu may dem jiital ko lu may kii dafa commencé am fit di wax ak nit yi ma su ma sañoon nag ñi am doom yu mel ni ñoom ñu bañ ko nëbb leen génnee boole leen si nit ñi parce que loolu mooy tax sax ñu tane gën a améliorer gën mën a nekk ak nit yi pare la mën a defar mën na létt mën na ay mèche ba pare affaire yi cuisine ko neex togg daf ko neex dafa sawar togg cuisine yëpp lépp togg ay affaires yi togg daal ak bopp daf ko bëgg di ñaan na képp koo xam ne mën nga ko jàppale nga jàppale ko ñëw jënd soo amee foo xam ne mën nañ ko fa yóbbu mu exposé mu exposé parce que si kër gi rek la koy exposé amul fu ko exposé ma leen di gërëm di leen sant ku ko defal rek si yàlla ngay ko sa bopp doo ko defal ndax collier mi daf koy def rek pour am passion ak am argent de poche pour mën a jëndaat ay collier mën a liggéeyaat. 77. 488. 588. 488. 89. 49. 49. ah c'est magnifique ñaatam euh, euh, ça se voit yaay ji buy buy wax da ngay gis ne que vraiment. Euh, mbëggeelu yaay moo moo feeñ dëgg daal elle parle avec beaucoup d'amour et de passion. dëgg la madame Diop da di koo xamante ni mhm. man déjà dama koy remercier parce que fi ma daje ak moom la ñu ngi daw ba daje si benn tali mi ngi woon ci beneen sens waaye ci digg tali bi la taxaw parce que daf ma seen ma nekk ci circulation bi donc mu gaare otoom daw jéggi. nit ñi di ko def piip piip mu daw jéggi ñëw taxaw ni ma dimbali ma jox ma sa numéro dama la soxla ma jox ko sama numéro mu dem ci la ma woowee bi ma woowee le lendemain deux jours après laa ni ko damay ñëw tourner parce que amul tax ma ñëw tourner jeena ba mhm, mhm. da di nit koo xamante ne nee na daf ma yàgg topp mhm. euh, di ma wër nee na mënul fexe ba am sama numéro mënul fexe ba gis ma parce que nee na li ñuy def nii déjà moom euh, yaay la waaye da di koo xamante ne dafa bëgg doom ji ba bi bi nga xamante ne ni tey ji gis na ni doom ji mi ngi exceller ci benn affaire moom ci boppam yaayam moo ko njëkk a soutenir parce que xale bi da doon jàng mm. da doon jàng seen école dañ ko doon ñaawal di ko wax ak ni mu mel ni melokaana mag ba pare mënul wax léegi après mu ne moom dootul jàngee jàngeeti dëgg déjà loolu rek problème la mm-hmm. toog këram bi mu toogee këram yaay ji ne ko nag loo bëgg a def ci lay jël ay perle di yaay ji xool ni kii dafa bëgg li muy def mu jë dem marché jëndal ko ay la ñëw indil teg ko mm-hmm. ci la defar collier yi euh, collier yi nag mu nekk loo xamante ne tey ji daf ko def pour bëgg xale bi dafa bëgg mu am jom mm-hmm. am jom mooy bu defaree collier yi ba pare nit ñi dañ ko war a jënd maanaam production day produire mais amul ku ko jënd mm-hmm. fauteuil yu yaayam yooyu nga gis noonu ca la ca lay ca lay exposé xaritu yaayam yi muy àndal ñoom ñooy ñooy ñëw ñoom ñooy ñëw di jënd mais également euh, xale la boo xamante ne dafa bëgg mën na togg mun na defar bopp parce que nee ma moom moo defar boppam noonu moom moo coiffé boppam mooy maquillé boppam mooy def lépp <laughs> donc jéene ba pour euh, wax rek ni mm. ñaari mbir moo tax tey jii ma dem mm. foofu euh, benn mbir bi mooy tey jur ci boppam dafa war a xam ni waaw elle est magnifique xam nga waajur moo war a xam ne sama doom lii moo ko dal mm-hmm. mu jàppale ko wanale ko ak nit ñi mais waru ko mm-hmm. nëbb pour commencer parce que yow boo ko nëbbee rek xale bi day am day am loo xamante ni day des ci moom dootul moom tax day rus a génn ci mbedd mi di mm-hmm. wax ak nit ñi beneen chose bi mooy xale yi nga xamante ne ñu ngi lii mi ngi leen dal ak ay mag sax trisomie 21 wala ñu nekk ay mongol wala leneen euh, dafa nekk loo xamante ne tey jii bu ñu defee ci benn liggéey rek war nañoo mun a am foo xam ne fa lañ koy yóbbu muy ay production yoo xamante ne dañ koy yóbbu di ko exposer mais tey kenn du ko nangoo jël léegi nag dafa benn organisme boo xamante ne ñu ngi fii Sénégal jot naa liggéey ak ñoom ci rubrique bi yaa euh, ci koor gi donc ñoom ñooy préparé actuellement benn foire bu mag boo xamante ne képp koo xam ne jaar nga yeewu leen jaar nga ci QG euh, ci émission bi dañ lay jël nga jël sa production yóbbu ko foofu donc message boobu laa doon lancé à l'endroit de personne yi nga xamante ni dem naa seeti leen ba pare euh, ñu jël seen production amuñu fuñ ko écoulé te loolu nasaraan yi ñoo war a ñëw fii Sénégal mm. pour fekke si loolu ak waa Sénégal bu boobaa jeena ba mm. dinañ ci parce que il faut ñu waxtaan ak waa direction commerciale ba pare mën cee gën a xuus ah, Dieng ku baax la mën cee gën a yaatu waaw mu xamante ni dañ ko def tax parce que tamit ki nga xamante ne tey day produire toog biir kër yaayam mënu ko wane caq yeeg yooyu kan moo koy jënd kenn du ko jënd il faut nit ñi gis ko pour nit ñi gis ko nag tey jii da ngay dem ci boutique sax di ko jël cher na wala kenn koo xam ne danaa la du ma liggéey ak moom du bokk ci mhm. sama sama sama exposé mhm. donc loolu moo tax tey ñu indi woon ko tey ci euh, yeewu leen euh, di encouragé yaayam nag bu baax ah ak papaam mi ngi Paris monsieur Diop mhm. euh, moom itamit mi ngi a bëgg si doomam loolu sax benn doom billaay macha allah et puis elle est elle, elle est mignonne euh, la la la petite macha allah euh, elle est toute euh, croquante comme euh, comme comme on dit généralement gis nga defar boppam defar ay perles bëgg togg loolu moom franchement il faut il faut vraiment le faire suñ maman mhm. waaw lii li muy tegtale rek mooy kenn matul mhm. yàlla moo ñu bind ba noppi matadil ñu maanaam nit moom matul waxuli xel insaanu mhm. dahifan bu mhm. buñ ko waxee dees na ko déggee ci wàllu xel waaye dees na ko déggee itam ci wàllu jëmm waaye ki nga xam ne itam la yàlla def ay cëram matadi ki yàlla def ay cëram mat bu mu jàpp ne daf koo gën euh, parce que des fois nag nit ki nay sant yàlla am na koo xam ne yàlla xañ na ko loxo xañ ko bët xañ ko dégg xañ ko wax xañ ko xel xañ ko lépp mën ne te teewul moom dafa war a sant yàlla kon yow mi nga xam ne suñu borom def na la sa kaw ba ci sa suuf lépp man na mm. ñàkkoo benn cër yaa war a gën a sant yàlla yëpp waaye tegtal la ci ki nga xam ne amul lii te fekk yow am nga ko danga nga ko war a jàppale mooy li def nii mm-hmm. kii amul làmmiñ dafa war a wax am na lu muy def yow da nga ko war a waxal mm. ki amul bët yow mi am bët yaa ko war a xoolal ki amul loxo yow mi am loxo yaa ko war a jëfal mm. ki amul tànk yow mi am tànk yaa ko war a demal bol jàpp ne moom suñu borom da koo téye yow bàyyi la dem dañ wax ne nit ki ngir mu sant sax ngir mu sant yàlla xam nga alxuraan dañ ne la in sakartum la asidannakum muy lii ma leen yàlla nee ne lii ma leen jox saa su ngeen ma ci sante bu dee fukk la ma dolliwaat ci yeneen fukk mm. waaye wala in kafartum in asabi la sadid saa su nag ni lii leen defal du ngeen ko sant suñu borom nee na ma xañ leen loola ba noppi yar leen mm. léegi nag nit ki ngir mu sant mooy day xool ñi ko féete suuf mm. mais toujours yaa ngi xool ki la nga xam ne lii mu am amoo ko doo ma sa sant sa sa bopp sa loos wi day damm ngir téen ah, moo tax man damay faral di wax ci samay waxtaane borom borom étage bi mhm. nay xool borom terrasse bi pour mhm. ne borom terrasse bi amul étage moom am na ko mhm. borom euh, terrasse bi nay xool borom faux terrasse borom faux terrasse bi nay xool borom borom borom borom seng yi borom seng yi xool borom sàkket yi borom sàkket bi xool kii wëralay bant am na koo xam ne ay bant la wëree la këram amul sax bunt lum sàkkete mais kooku itam na xool ki nga xam ne benn xam nga singal benn sëngal sëngal lañ koy wax sëngal mooy benn néegu ñax boo xam ne ci digg kër gi moom rek moo ciy dëkk mm-hmm. daara du wër kër gi mm-hmm. moom bu génnee buntu néegam fu waay di ko séen dëgg la am na koo ah, xam day bu génn buntu néegam dugg ci salle de bain dëgg la génn dugg ci këram fu ko neex kenn du ko gis mm-hmm. mën na sax taal otoom ba génn ba dem ta mbedd mi kenn du ko gis yàlla may na la xéewal googu am na koo xam ne biir néegam lay tëdd nit ñi di ko seen am na koo xam ne ci mbaar lay fanaan kon borom sëngal bi itam na xool borom mbaar mi am na koo xam ne amul kër far am na koo xam day wër fu mu xëy tey bu ngoonee ñu génne ko mm. mais am na koo xam ne fa mu tëdd mënu faa jóg mm. mais am na koo xam ne itam faatu na am na koo xam ne judduwul dëgg la kon ban étape la nit kiy taxaw ba ne man du ma sant yàlla des fois nga gis ko taxaw naa man lu ma def yàlla mm. loolu wax la joo xam ne kenn waru wax yenn saa yi nga nekk ci ay situation da nga ay yàlla <laughs> bol caalit bol ah. caalit bol ne lu ma def yàlla ma def yàlla ah. yàlla kenn defu ko dara luy tax yàlla du fayantoo la koy teg rek yàlla du fayantoo dina nattu ab jaamam nag gis nga képp koo xam ne suñu borom defal na la ab nattu yëgal ne natt bi mooy li gën ci yow xam nga lu tax mm. gis nga ki ay cëram mat na xam ne matu cër yi mooy li gën ci moom mm-hmm. mais ki ay cëram manqué amaana kooka boo amoon cër yu mat du baax ci moom mm-hmm. na jàpp ne cër yu manqué yi moo gën ci moom parce que yàlla du juum yàlla lu mu def dèjà am na lu tax mu def ko gis nga pays bii téye caméra bi ñetti pays am mm-hmm. lan moo tax amul ñeent ñetti yee ci moom lan moo tax amul ñaar ñett yee gën ci moom ndekam nag nit ci boppam nit rek dèjà mooy teg ay ay palam ay programme am ni lii moo gën bu lii amoon du baax nangam ak nangam yàlla rawatina suñu borom mi nga xam ne moo bind de kii nag dañ koy ñaanal waaye nañ ko gën a jàppale yaa ngi wax léegi tubaab bi balay tubaab bi yëpp suñu réew mii mhm. nañu gëm suñu bopp ma ne la centre colombin gii demoon naa fa seeti leen dafa am ñu fa nekk ñoo xamante ne duñu dégg mi ngi fii ci wakaam mhm. xale yi duñu dégg te mënuñoo wax mhm. mais poterie yi ñi ngi defar ay vase yoo ah xam ne defar ay loo xam ne tey jii ambassade yi nga xamante ne ñoo ñoo nekkul seen ñi dëkkul Sénégal am fi ambassadeurs yi mm-hmm. ñoom ñoo fay jënde ay cadeau pour seen ay gan mais mm-hmm. Sénégal duñ fa jënd mm-hmm. waaw loolu loolu a te gis dafa am loo xam ne jaamu yàlla la te la ñuy defar tey ji bu ko tubaab bi jëndee nga dem këram daan ay waay ak a rafet fekk Sénégal la jóge a garaaw sax xam nga lu gën a garaaw tubaab bi moo koy jënd yóbbu ko jaayaat ñu ko lu gën a jaayaat ñu ko lu gën a cher <laughs> jaamu yàlla ma wax leen secret mm. dem fekk ki nga xam ne dafa mënul wala handicap la wala wala dafa ñàkk muy jaay yow li muy jaay donte soxla woo ko sax nga jëndal mais fii ñun ñëpp daf ñuy dal la nga jox loolu da koy jàpp da nga ciy am tiyaabay suñu borom mhm. waaye lañ ciy dégg mooy kii ak li ko suñu borom teg mi ngi liggéey mhm. kon dafay tegtal Sénégal ñëpp war a liggéey mhm. dëgg la ñëpp a war a liggéey nit ki amul benn étape ba mu toll ni waruma liggéey parce que foo toll am na loo man mm. yàlla du juum de foo toll am na loo man mm. kon nag a war a dem liggéey da leen gis koo xam ne yàlla def ko manqué wul dara muy taxaw ci mbedd mi laaj ak di ñaan ak yalwaan di mm-hmm. poñ ñi kenn xamul sëriñ bu dul sëriñub jinne mu tudd ko mm-hmm. mais yooyu jaaduwul yooyu day tax dee am réew kon ñëpp a war a dem liggéey parce que ku ne ala kulli aalim am na loo man mm-hmm. ku ne am na loo man donte amoo bët amoo tànk amoo dara am na loo man yoo xam ne boo ko la te ñuy dimbali événement bi kañ la événement bi tey dans deux mois gaa yaa ngi ci di ci liggéey mhm. donc mu nekk loo xamante tey ji euh, occasion la mhm. pour Sénégal nañu réfléchir parce que bi ñu commencé nag rubrique bi ba léegi mhm. am na yeneen télé yi macha allah nit ñaa ngi koy reprendre di def ay euh, entretien ak ñoom ak yooyu noonu gis nañ ni même ci réseaux sociaux yi ñi daan ñaawalee ñi am laagoog yooyu dafa xaw a wàññeeku euh, dem yoo xamante ne également ñiy yore chaise roulante yi am na léegi fu ñuy mm-hmm. jaar mm-hmm. banque yeeg yooyu ñoom ñëpp defaral nañ ay passage mm-hmm. ñi ngi commencé di réfléchir di gis njëriñu loolu ba pare ñiy dimbaliwaate nañ ko yóbbu fi ñu ko war a yóbbu bis bu nekk ñu wax ko parce que yow mi nga xam ne dangay ngay dimbaliwaate tey jii euh, boo dimbalee nit pour ñu wane la ci télé bi wala ñu wax sa tur tey boo waree feeñ yàlla dalay feeñal te kenn du la kenn du la wàññi mm-hmm. parce que yow mi nga xamante ne da nga dimbali xale bi defar loo xamante ne bu ko bu ko defaree pare bu ko jaayee fa mu dëkk lay fay mm-hmm. wala fa muy jànge loolu dimbali nga cinq dix personnes wala quinze personnes donc macha allah yàlla nañu yàlla jàppale te incha allah dinañu dellu si ngir wax leen euh, lan la fan la ñu war a fan lañ koy defee kañ la ñu koy def ak ban organisme lañ ci nar a àndal incha allah incha allah ñaatam en tout cas merci et puis un gros bisou. Euh, donc euh, à la <laughs> petite Oulimata donc euh, di ko di ko faire euh, on lui fait un gros bisou mais aussi di encourager euh, sa mère et son père parce que ce n'est pas évident. nga am doom ju am laago mais li gën a am solo mooy assumer ko. Mm. rassurer ko surtout mm. donc c'est important. Mm. donc di leen ci féliciter di leen ci nokkel bu baax a baax Sophie. Dieynaba. Sophia mais nag ma caméra ma nuyu Sophie. <laughs> yow Sophie. Youssou Ndour bee tax tey nga <laughs> eh, ay Dieyna. dégg naa danga li nga fecc ci Youssou Ndour ba moom moom ñu ngi fa tege. Dieye gor kenn du ko topp ba mu sës. mais yëg nga ne Youssou mais yëg nga ne Youssou Ndour dina ñëw euh, Tëngéej euh, le le le est-ce que du toog dee. déedéet li souvenir def na ko li xale yi naan def na ko dóom. waaw wuy leen ma ci vendredi la tey diine la ñuy waxtaanee. <laughs> waaw looloo ma jaaxal nag. def na ko dóom lii kenn musu koo gis. non ni def na ko dóom jeex ah, c'est le roi nag. bu dama ko jëlee woon dënn. dama waroon a def nank rek. baadu da nga soloon talon. dama loof. tey nga dee dama yoo xam ne kenn toogul. <laughs> ñaari ah. moo daaneel ñëpp da ngay pare toog. ndeysaan en euh, rek wane encore suprématie bi nga xamante ne moom fi mu nii kel ak bisaab laa teg nii <laughs> dinaa xale góor yi yor nañ say archive nañ si ginnaaw si dangaa tooy fi dangaa tooy Sophie maa ngi lay nuyu bu baax a baax mais noonu la àdduna da ngay bégee waaw sa enseignement moo da ngay bégee comme ni wax ah, rek nekkal ci diine gi waaye tamit ngay bégee ah non Rufisque moom da ñuy gunge moom non dama ne xoolal dañuy bégee. ma ne ah? ko Rufisque moom da ñuy gunge. man moom dew ma woon dew ma woon gën barki démb dama amoon méttitu bëñ wax yow méttitu bëñ aw non léegi moom ku waaye waxati méttitu bëñ moom man ngay di ngay dimbali la ilaha illallah existé na de akam daa jàpp xol jàpp non moo tax ñëw ci soirée ba. Massa Diena Ba <laughs> xanaa rek alors Sophie maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Diena Ba di nuyu mbokk xarit di ñuy seetaan rek euh, di ñëpp di euh, jaajëfal ñi nekk ci plateau bi. comme ni ñu koy defee nag à chaque fois. les vendredis boo xoolee Diena Ba dañuy andi ay plat yoo xam ne ay plat yoo xam ne ay plat local la. comme ça li ko demee ni euh, la plupart du temps dugub la ñuy utiliser wala mbokk wala mm. céréales locales en fait d'une mm. manière générale euh, tey nag maa ngi andi li nga xam ne mooy euh, laax aux fruits secs oh. moom laa andi tey ba mm. am naa fruits secs yi am naa araw bi coco râpé vanille ananas pomme les euh, les caillés les concentrés non sucrés euh, extrait de vanille am naa aussi fleur d'orange ci kanam tuuti rek jey euh, na ba ñu boole yëpp daal defar di nga xam ne mooy plat du jour. tey bi laax bi. laax bi teg naa ndox bi. def naa ci tuuti xorom. ak benn daggu beurre bàyyi rek mu baax. ñu commencé laax. kese soo bëggee léegi ma laax ko léegi en direct. déedéet laax laax ko laax ko bàyyi ñu bàyyi la bàyyi peut-être euh, bu nekkee baax na ñu laax ko. Euh, sinon ñu laax ko après. baax na ay ca ba tey mën nañ ko laax ci kanam bu ñu ñëwaatee ñu defar soow bi. ak yi mu war a àndal. laax ko <laughs> d'accord ay ca ba comme ni ñu ko waxee rek gis nga teg nañu ndox mi dañu jiitaloon nag euh, beurre comme ça beurre bi ak xorom bi mu baxaale su baxaale dafay tax euh, da ngay gis ni ndox mi dafay changer couleur dañuy ñëwaat rek dolliwaat tuuti beurre parce que am na ci. su na nga yem après ñu yeggale li si ba tey baax na jeex na ba. xam nga rek da wax ji dama koy nam daal. Ah, <laughs> voilà gis nga nii rek euh, na ba boo ma uh-huh. jege woon rek wala ñaatam jege ma mais mën naa ko sotti sama bopp rek. bàyyi ma ñëw gis nga nii rek. Mm. comme li ñuy def rek mooy laaxu kër yi nga may sotti mm. may yëngal loolu da ci am solo. xaaral ma ñëw jàppale la waaw kay gis nga lii laa doon bañ nag. bàyyi ma jàppale la. <laughs> voilà waaye tey baas bi baax na de. ah gis nga loolu. Ah. xaama amaa sonn ci gesneer yi nga koy wàccee naa ma la koy wàccee nag voilà ok gis nga nii rek waaw très bien en douceur nga xam ne du am benn grumeau mhm. te li nga soxla ci laax bi danga koy am waaw soo paree ko ci yekkal di kay <laughs> kii laa ci yekkal monsieur Tall rek Youssou Ndour monsieur Tall waa kay ak Youssou Ndour <laughs> kay ndekete fecc yi fa mu nekkoon jugu fa ah. <laughs> Badou dañ cee dem ba jeex. comme <laughs> nekkoon jugu <laughs> voilà gis nga naka jay na ba nii mhm. rek. mu ànd ak beurre bi mais la moo tax nga ji nga jiital ci beurre bi noonu. parce que beurre bi dañuy soxla euh, ndox mi déjà. mu am mhm. goût balaa muy fekk ji araw bi. parce que des fois di nga togg laax jay na ba nga gis mhm. ni que dafay fàdd. Ah. dafay fàdd. d'accord bu amee beurre nag dafay gën a relever goût bi ak surtout xorom si ñu bañ di ko fàtte. d'accord ah, kay ah ma foogoon ne xorom bi da ngay bàyyi ba nga kii ba pare. a xorom bi man bu may teg cin rek dama ciy def xorom waaw d'accord ay astuce la ay astuce la yoo xam ne dafay tax sa gën a am gu bu nekkee rek amoo ku la jàppale da ngay woo sëñ bi rek nga ne ko ñëwal nga sotti waaw kay da ciy am solo ñoom nag de temps en temps baax na ñu leen di dugal ci biir waañ yi ñuy sotteeg yooyu di tànn ceeb jay ba macha allah ustaas a ngi léegi ah, ustaas loolu diine la di diine la kay nee wax nga lu baax ayca bismillah kay jay na ba dama mu nag délication xam nga man kay macha allah <laughs> xam nga togg moom euh, dafa laaj délicat moom koy fi nii moom macha allah ni nga koy wàccee nii fu nekk laa koy wane <laughs> déedéet kay voilà tey kay laax bi nag laaxu jay na bala bu neexul rek jay na bala jéggal bu neexee man la <laughs> après ñu ñëw ci astuce soow bi. waaw après ci kanam na ba ñu ñëw ci soow bi. Mhm. voilà lii am na ci sol déjà. mais je vois déjà que nekk amul grumeau. du am benn grumeau ngay sotti rek may yëngal nag voilà très bien. jërëjëf. mën naa dem toog yow kay fi mu ni toj nga fi jënd ba. <laughs> dellu naa sama place. gis nga nii rek euh, ñu am benn laax boo xam ne du am benn grumeau mu rafet macha allah dañu koy bàyyi nii rek wàññi gaz bi ci kanam nag ñu ñëw ci préparation wu lekkaay bi jay na ba en tout cas ci kanam euh, lay doon euh, tonton mag bu laax bi pare ñu ràcc ko nag def ko ci bool bu mag bi yoon tey amul lekkee kudd loxo la ñuy lekkee suñu paree dem raxasu yaakaar naa ne foofu la barke bi di gën a di gën a bëri sëñ Mamour loxo ndax euh, loolu moo tax yàlla bind loxo yi te aussi mooy ëpp barke. mais xam nga kudd moom kudd moom euh, kudd moom kay kenn xamu ko. Mhm. Euh, amul barke daal. Uh-huh. léegi nag lekke loxo. waaw li suñu borom def ci sa loxo yi amaana xëy na li lay faj mi ngi ci. waaw ah, li liy defar sa mbir mi ngi ci. Mhm. nga lekke sa loxo loolu barke la boo noppee mar say loxo ba mu set. waaw lekket ak kook nag mag mag ñi sax daan nañu def tabas xam nga tabas. tabas mooy lan. tabas boo lekkee bari bala ngaa lekk da ngay raxasu ba set. waaw boo ko dee xool nag dafay niru lu salté. waaw Uh-huh. boo raxasoo ba set. waaw boo lekkee ba pare. Uh-huh. nga dem laal tuuti ci say loxo laal tuuti ndox. waaw nga daal di koy kii ba sa loxo yi. mel ni ku koy kii nga maraat ko noonu. <laughs> Uh-huh. loolu da loolu day guddalu fan. ah woo ah day guddalu fan. oui ma soo feebar du la daal. soo soo paree. da ngay def ko ci bool bu mag ñu lekkee loxo ñun ñëpp caméraman yi ñun ñëpp waa régie ñun ñëpp ñu lekkee loxo def nee nañu lu mu gàtt gàtt da nga dund 90 ans mais gàtt gàtt da nga léegi bu ñu baax la que yooyu yëpp waaw léegi bu ñu comprendre boo lekkee ba pare dangay def sa loxo tuuti ndox te loolu bala ngaa lekk da ngay raxas say loxo da ngay raxas ba pare say loxo bañ a tilim mhm. parce que loolu ci wàllu cet rek ci wàllu set mhm. yaakaar naan lu ñu say dëgg boo raxasee say loxo ba mu set boo lekkee ba pare ak loo mën di lekk waaw boo paree ba da ngaa mar say loxo ah. nga dem laal tuuti ndox waaw nga tabas waaw tabas mooy def ko nii waaw def ko nii ba say loxo moxoñ ko daal waaw mhm. nga daal di koy mar ba mu set nga soog a raxasu d'accord <laughs> ok ñu bëri nag xëy ko def tey kii na ah, tabas gudd fan nag jar na jar lu ne waaw jar na ko ans moom jar na ba dee it <laughs> en tout cas merci dinañ ko def ci kanam tey moom laax bi euh, ci bool lañ koy rek daal di def wala ñu def ko suñu plat bu yaatu. def ci sow bi sànni ci ñu ci sànni ñu woo ñëpp ne leen ñëw leen ngeen lekk bu ñu paree ñu tabas ndax aussi ñu gudd fan. Euh, ndaxte loolu la ñuy ñaan euh, ñu ñëpp fekkee kon suñuy njariñ ñu njaboot waaye tamit gunge suñuy waajur yi bu yàgg yàgg kon ci kanam dañu ko rek daal di def mais actualité beneen bi tonton Mag moom mooy aussi suñu gaynde yu jigéen ñi. Mm-hmm. waaw parce que nee nañu et Dieu créa femme chaque jour ma wax ko loo bëgg mu dox daal dénk ko jigéen ñi euh, te jigéen ñu nekk ci wàllum basket ñu ngi koy rek daal di wone Euh, démb nag euh, ñu daal di euh, joxe ticket bi nga xamante ni moom moo la yóbbu kon ci demi-finale bi demi-finale bi nag tey jii lañ koy jouer ci arena final bi dimanche la donc franchement di leen rek daal di félicité bu baax ñoom suñu gaynde yu jigéen ñi nar kon jano ak Mozambique. dëgg la ba man li may njëkk wax rek mooy public bi déjà. waaw li leen nit yi di demee di supporter xam nga am na benn match boo xamante ne y avait mm-hmm. tabaski bi la woon. période tabaski mais terewul dafa fees dell démb également pareil dafa fees dell donc mhm. mu mel ni rek public dafa baax ci ci équipe ah da lay bu baax waaye tam xale yi am jom mhm. macha allah jigéen ñi am nañu jom donc dañ leen di ñaanal rek ñu mhm. jàll demi finale bi dem finale coupe bi daal di fii des comme ni ñu ko waxee macha allah ah, en tout cas am nañ jom boo leen gisee si terrain bi man nag li ma gën a neex ci ñoom je sais pas tonton mag ndax am nañ image mooy bu ñuy dugg si bi ngay nuyoo bi et ça c'est c'est vraiment équipe mais aussi coach bi euh, nu muy rek euh, yoree xale yi franchement macha allah di leen ñaanal ndam euh, kon tey seen match kon seen digg ak Mozambique mais surtout kon demi-finale bi nga xamante ni finale bi nga xamante ni kon incha allahu rabi am na ñu yaakaar ne ni danañ ca rek daal di yegg ba coupe bi kon desandi fii ci Sénégal kon oustaz sëñ Mamor man maa ngi lay wax oustaz rek. Mhm. non est-ce que sax moom mii. Ah, man de damay damay dongab dara xam nga oustaz moom leneen la. Ah. moo tax man euh, wax dëgg yàlla du ma ko bëgg di dégg. doo ko bëgg di dégg xëy na daal euh, ndongo daara bi sax wala sëñ Mamour. moom lay mhm. daal di gënal. Mhm. parce que oustaz garaad la te man jàpp naa ne amaguma mhm. garaad boobu. oustaz mooy ki nga xam ne am na jàng na. ba am sañ-sañu toog ci kanam ñëpp. di leen jàngal mooy maître rek. man jàpp naa ne dongo daara laa ba tey. waaw bokkuma ci ñi war a toog di jàngale. mais li ñu wax léegi ci jigéen lan nga ci lan nga ci lan nga ci ci xam. li ñuy wax léegi jigéen moom suñu borom moo ko def mooy sos lépp. mooy sos lépp lépp lu sos ci jigéen la jaare lépp lu jag jigéen ko jagal waaye au lépp lu yàq jigéen a ko yàq waaw loolu ñu bàyyi ci xel parce que ki mën a defar moo mën a yàq foofu laa ci jublu ki mën a defar moo mën a yàq ki mënul a defar mënta yàq est que dégg nañ ma mm-hmm. ki mënul defar mënta yàq dara fii ki fi mënta defar mënu fee yàq dara mais ki fi mën a defar moo fi mën a yàq jigéen nag moom la suñu borom jël léppi àddina teg ko ci loxoom léppi àddina ak laaxira sax laay wax parce que euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaw parce que parce que bu loola ci ci wàllug ci wàllug ci wàllug sëy a ci wàllug doom lañ ci doon waxee euh, dañ doon wax ne ñaar ñu seq leen te lu ca sikk ca loola ñu giñ ko kenn ka nee na kañ koy kañ koy kañ koy giñ war naa góorgóorlu bu baax a baax ñu ne ko lan mu ne doom lu ci sikk ñu giñ ko liggéeyum dayam kon jigéen moo war a góorgóorlu parce que moom mooy suuf si ñu war a bayee suuf si ñuy bayee nag bu nangoo lépp jag waaye jigéen bu baaxee société bi lépp baax waaye jigéen bu bonee société bi lépp yàqu parce que yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee ne bi ma demee ci al isra wal mihraj nee na dama suñu borom dama dama dama damaa wan ma yër sawara nee na seen seen musóor yi tëmbe seen musóor yi tëmbe fees del yonent alayhi salaatu wasalaam du sama wax bopp sawara sawara nee na seen musóor yi tëmbe fees del nee na seenu ma sax luy niroo kom laafa wala ab kap na seenu ma eh, dafa am lu tax mu wax ko nee na nee na nee na bi mu laajee suñu borom mu ne ko lii jigéen ñi la léegi nag eh, am ko masala ci jamono yi sëñ Tuubaa ne ko Mbàkke damaa dégg ñu ne sawara borom musóor yaa fa ëpp ndax boromum laa fa dafaa amul xam nga lu ko sëñ bi tont dane ko axa kay waaye boromum laa fa moo fa gis boromum musóor ko fa dugal ñoom ñoo la mën a ñoo la mën a yóbbu àjjana mais ñoo la mën a yóbbu sawara question bi noo ko mën a posé ah, loolu mooy dëgg bi question bi noo ko mën a posé xam nga lu tax xam nga lu tax ñoom ñoo am possibilité lépp ñoom la suñu borom teg ci seen loxo possibilité lépp ñoo la mën a yóbbu àjjana léegi ñoo la mën a yóbbu sawara léegi mm. ñoo amee kàttan bi Hmm. loolu it il faut ñu xam ko jigéen góor day réglé kër gi réglé njaboot gi nangam ak nangam mais am na loolu suñu borom da koo teg ci loxol jigéen suñu maam aadama moo indi woon solution ci jamonoom. Ah, waaw eh, yonte ba alayhi salaatu wasalaam dama laa bëgg wax rek ñu ne jigéen. daraja ji nga xam ne am na ko ci dund avant sax diine mais ci dund rek ak ci expérience mhm. ak pexe pour mën a doxal mbir mhm. yonente bi keroog ba ñuy def mhm. li ñuy tuddee solonu day biya ah, eh, bi ñuy waajal fatu màkka bi ñu waree dugg màkka te yéefar yi tere leen saxaaba yu bëri dañoo meloon ne ñun bu ñu bañee dugg màkka ren ah day mel ni yéefar yi dañ ñoo man nangam ak nangam duñ ko nangu mm. yonente bi rek ne seeni xar ta ngeen watu mm-hmm. mais saxaaba yu bëri dañoo bañ mais yonente bi dugg ci biir néeg bi daal di wax soxna umu salama soxnaam ne ko waaye jullit yëpp perte nañ torox nañ ñi mënalutuma leen dara soxna umu salama ñëw tekku ko loxoom bu tedd ba daane ko yow yonente bi yàlla bi ne ko ñii duñu perte duñu torox ndax dañoo bàyyi seen i ndey bàyyi seen bàyyi bàyyi seen lépp topp la ngir bëgg la te yàlla tax daan ko lu ñu def mu ne ko dama leen digal ñu bañ soxna mu salama ne ko loolu yomb naa lijjanti mm. loo leen digal mu ne ko nangam ak nangam ak nangam mu ne ko génnal def ko mm-hmm. jigéen am boobu xalaat de génnal def ko oh. yonente bi génn woo na no Arisata wala keneen ne ko wat ma naka yonente bi watu Aboubacar tëb watu Omar tëb Ousmane Ali ñëpp jóg watu ah ba mu ko joxee solution ba ca la lépp réglé mm-hmm. dëgg la te pourtant kero kero bi yonte bi alayhi salaatu wasalaam gisee Jibril ca xaaru Hira mm-hmm. soxna Khadija moo doon soxna dëgg la booba soxna Khadija mi ngi toll ci dagg rek kii dagg say kii yëpp mm-hmm. nangam nangam loolu mm-hmm. yonente bi digle woon ñu bañ parce que booba dañoon kii mais jigéen moo indi solution bi kero lépp réglé mais soxna Khadija kero bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam gisee Jibril ca xaaru Hira dafa ñëw ne ko sàmmiloo nii sàmmiloo nii muur ma muur ma uh-huh. parce que damaa jommi mu ne ko yow doo jommi yow yàlla du la toroxal yow miy uh-huh. dimbale ñi ñàkk yow miy xettali ki mënul yow miy def nangam ak nangam nangam lu baax daan ne ko déedéet kaay ma lijjanti ba xam lii la dal la uh-huh. gis jigéen problème du ñëw rek mu ne wuy tay ma dee wuy fu ma jëm il faut jigéen il faut nga wut solution dëgg la mu ne ko mu ñëw ci poojum day jor mu ne ko yaa ngi koy gis mu ne ko waaw mu ne ko ñëwal góos mu ne ko yaa ngi koy gis mu ne waaw mu muri boppam ne ko ndax yaa ngi koy gis mu ne koy gisatuma ko mu mhm. ne kon du lu bon malaaka la ne ko malaaka du gis bopp jigéen mhm. moo tax attention maa ngi profité foofu malaaka du gis bopp jigéen xam nga jël nit di jël paaka wala fetal mooy rey nit mais mhm. malaaka bopp jigéen moo koy rey ah kon malaaka yi yaa ngi malaaka yaa ngi dee rek <laughs> yaa ngi malaaka yi yow comme ku yor xawma sarde combat rek ratata di tiire malaaka yi de mooy bokk liggéey <laughs> malaaka desatul fi malaaka fi Sénégal moom yaakaar malaaka desatul kon loolu mais malaaka yi duñ jeex malaaka du gis boppu jigéen waaw malaaka du gis boppu jigéen bu koy gis <clears throat> moo tax bi mu muree bopp bi rek ne ko yaa ngi koy gis mu ne gisatuma ko parce que mm-hmm. boobu jibril nag jibril loolu ko mm-hmm. jibril moom da koy xëcc day gën a gaaw sax parce que moom loolu rayu ko ko moom rayu ah, <laughs> dafa am gilet xaw ma par bal xaw ma yu kenn xamul gilet par daf ko am <laughs> moom kii ray gaay yëpp dara rayu ko ci <laughs> moom buy ñëw moom day xuus rek moo ah, mën a teet bee immeuble bi gën a kawe foo dem moom dara dara dara. waa cheveux naturel nag. non cheveux naturel kenn ku fi dugg ci yooyu tam di ñu indil problème. non dafa am yoo xam ne xëy na. borom xam-xam yi ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy ñu ngi ciy yóbbu. bàyyi na salaatu wasalaam daal en tout cas man li may wax te mu leer te hadis bi wax ko. mooy ba muy wax mbirum li araam jokk la wax. jokk yokk jokk jokk mooy yokk ba tey. waaw mooy sa karaw gii nga jël leneen takku ko ci dolli ko. waaw loolu daal xëy na nag la ñuy këppoo. waaw loola borom xam-xam yi wute nañ ci. am na ah, ñu ah, wute nañ ci de ma ma xam na dagan na. am na lu ne kii mais saxul ci sa karaw jokkuñ ko ci sa karaw. waaw loola mënees mënees su cee déggee xaddis ba. xëy na ndekam lu ñuy këppoo la loolu la ñuy xool. mooy dañ koy dañ koy kippari sama naturel ba la ñuy xool. parce que karawu nit la woon. waaw te karawu nit kooka karawu ba sobe la. a seer mhm. dafa seer. léegi mhm. karaw gi karawu nit la woon ana nit ka Ah, xam nga généralement Inde wala yenn dëkk yi nga xamante ñoo am karaw c'est-à-dire que ñoom dañuy ñëw di joxe di joxe ah, seen euh, seen karaw yi di ko jaay en fait dañ koy dagg di ko jaay wóor na ko ni ci loolu la jógee ah waaw non non non non wóorul dégg naa Sané loolu wax naa karaw nit ñi dee ñi ngi kii ci seen bopp yi xamuy kenn waaw waaw waaw maanaam nit kaa dee nit ki est-ce que karaw mm-hmm. ko rey mm-hmm. dëgg la nga jël ko dëppoo yow it fay laahu dee dëgg la kon daal c'est naturel tubaab yi moom temps yële moom tubaab yi tubaab yi def nañ benn défilé boo xamante ne dañoo bàyyi seen karaw ba mu ne hmm. léegi ñu ne dañuy dañuy défilé pour ñu bàyyi seen karaw yi ñuy di ñuy hmm. dagg di ko jaay xam nga daal soxna Jeene ba lan laa jàppee naturel ñoom fu mu ne mer nañ mooy li ne ci yow nga xam ne booy sangu doo ko di saw naturel dañ koy sanguwaale waaw mën nga ko sangoo après nga séché ko mën nga ko <laughs> yéen ba li yëpp yaa ko tey booy tëdd da <laughs> day sax ci sa yaram. day màgg day màgg. loolu laa bëggoon laaj naturelul. sëñ Mor lu naturel mooy li nga xam ne mi ngi ci sa yaram di màgg booy sangu doo ko dindi ah léegi karaw gii la suñu borom defal. yow gis nga non gis nga yàlla kenn ko nekk non. mënatuñ laa gis nga yàlla kenn ku nekk. tëjal la nga yàlla kenn ah, ku natt na ba xam lii ak lii ak lii. la mhm. soxla mhm. nangam ci karaw nga war a dundee mhm. nangam ci bët nga war a am am na ñoo xam bët yu sew la ñu am waa léegi waa léegi man damay laaj ci benn question rek la am bu lay neexee ngeen tëj sama micro damay gis jigéen ñi lu ne ñu yokk waaw karaw poosé lan moo tax ñi seen i bët sew demuñ yokk ko boo tegee kii da koy yokk lan bët yu sew yi laa wax lan moo tax demuñ ñu ñu ñu teppi leen ko seen i bët gën a am na loo xam ne boo ko defee da koy yokk lan day yokk bët yi gën a yokk bët xanaa kon jigéen ñi jotaguñ ci jigéen ñi yaa ngi Sénégal am nañu ñi ñi ñi gàttit jigéen ñi gàtt lañ gën a bañ lan moo tax demu ñu ñu yuqi leen boo xasee ba yokk yokkal lépp yokkal lépp kay yokkal lépp bu sa gémmiñ sewee demal ñu yaatalal la bu say nopp ndawee demal ñu yokkal la euh, ah? euh, en tout cas pourtant ah, chirurgie esthétique pourtant chirurgie esthétique yegg na foofu mais pourtant oui ma chirurgie esthétique yegg na foofu léegi euh, sa kanam nu la neex léegi mën nga ko transformer léegi hmm. chirurgie esthétique